waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa oustaz Cheikh Modou eh, Thiaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar waaw ahlul kitaab day dagan na ci ñun ñu takk leen ak juif yi wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wala wal muxsanaatu min alladina utul kitaaba joojee alquran wax ñooñu mooy ñi nga xamante ni eh, ay gor lañ te bokk ci ahlul kitaab ñooñu dagan na ci ñun ñu denc leen ci ci jullit ñi waaye bu dee ci yoonu Malik Malik moom nee na da koo xam nga fi ne yow ko takk ci ñoom bu ko neexee day nekk ci diineem joojee te doo ko sañ tere nga xam ni moom église bu jotee day dem église ak bu bëggee lekk yàpp mbaam lekk yàpp mbaamam mag te doo ko sañ tere bu bëggee naan sàngara naan sàngaram te doo ko ci doo ko tere léegi bu ko defee maamu Malik nag ni koo xamante ni day naan sàngara di lekk yàpp mbaam ba pare di yar njaboot di nàmpal say doom ak yooyu moom loolu daal ñu bañ koo def moo gën bu dee ci Malik moom loolu la gis waaye nag dagan na de amma bu dee ci wàllu comme ni ñuy takkee ci lislaam xam nga maanaam ni ñuy takkee ci lislaam comme nga dem ca jàkka ja mbooloo mi dajaloo kom seede yu bari it baax na ci waaye tey fi mu ne ni ñu takkee ci lislaam sëy moom du caagi nag nii ñu koy defee rek force noonu la comme ba yooyu ñu ciy jàng yaa ayyuhan naas ittaqoo rabbakum ak ba ba yooya jeex maanaam loola moom dañ ko caa sopp rek waaye fim mu ne nii booy booy maye sa doom ñi lay ñaan si ñëw toog yow mi maye nga ñëw toog seede yi ñëw toog ki lay ñaan ñaan la nga may ko sama doom diw sàngam maa ngi koy may diw doomi diw sàngam may naa ko diw sàngam wala diw ñaan la nga may ko loola rek sëy ba fasu na même boo doon kaf ak sab xarit sax mu ne la may ma sa doom diw sàngam nga ne ko may naa la ko sax sëy ba fasu na même boo dee kaf loolu moom bu ko defee nag loola jarul ca jàkka ja lañ ko war a defee ca marché baak wala force barab sàngam lañ koy defee déedéet bu fekkee ña ñuy maye doon doon duñu ay jullit ñu ni leen da ngeen di ñëw ca église ba ñu mayu leen sax bu boobaa dagan na ñu mayee ko ca église ba incha allah wallahu taala alam waaw koo xamante ni de daa toog rek di xalaat ba yàgg mànd yu gé ah, mas yu génn ci moom dañoo wax ne du yàqu koor waaye nag bu dee koo xamante nii nag moom jigéen moo ko romb muy xool di xool di ko xool di ko xool di ca bànneexu ba mës yu génn moom dañoo wax ni bis boobee da koy fay maanaam bis boobee day yàqu ci yoonu Maalik bokkul ak ki toog rek ba yàgg mu xalaat mas yu génn ci moom kooke dañ koo tàqatle ak ki nga xamante ni eh, da doon jigéen a ko mu koy xool di ko xool di ko xool ba yu génn ci moom wala mu doon foog soxnaam ba mas yu génn waaye man yu génnul masiw moo génn kooku dañuy wax ne day xëy bis boobee incha allah wallahu taala alam waaw ustaas Modou ñu ngi lay nuy bu baax di la ziar waaw loolu day xadis bu wér la man nañ ni sax du benn xadis ndax sayyidatuna Aïcha wax na ko ummu salama tamit wala xafsa sayyidatuna xafsa nettali nañ ko mu doon xadis yoo xamante ni muttafaqun alayhi la muttafaqun alayhi borom xam-xam yi dañoo wax ni bu ñuy xool darajee xadis yi moom la ñuy jiital Uh, maanaam boo xamante ni Buxaari ak Muslim ñoo ko bokk nettali ndoo booba mooy bi ëpp dara daraja ci xadis yi nga xamante ni xadis ay xadis ahad lañu lañu bu ko defee bu fekkee ñoom ñaar nettali nañ xadis rawatina mu mu mu tey wax ci menn masala ñu ni ba Buxaari jël wax lañuy jël bu ko defee nag ñu door a jël bi Muslim wax ñu doore ñëw ci seen charte ñoom ñaar nga xam ni kon xaddis boobu moom wér na même ci mazhabu maalik tamit loolu du yàq koor nit ki woor maanaam foon soxnaam ci bëccëgu weeru koor du ko yàq waaye xam nga boo gisee ci yoonu Malik ñu ni dañ koo sit ba maanaam Malik day faral di def ci jaamu yàlla yi num la mën a num la mën a fegee maanaam bu doon ab sàmm mu ni ñum num la mën a xàjjee ba nga bañ a jege digg wi rek moom no da koy faral di jëfandikoo moo maanaam saddu sariya boobu nga xamante ni day mel ni luy fatt ay porox ndoll moo tax yu mel noonu du ci faral di di di masla ndax nit ki def ko kooram yàqu dafa yomb ñu ne nag sib nañ ko waaye ci gone lañ ko gën a sib ndax am na xadis daif boo xamante ni Abu Daawud andi na ko ñu ne am na kuñ musoon a ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi ni ko damay ndax bu ma wooree mën na ma fóon sama soxna mu ni ko déedéet keneen ñëw laaj ko ko mu ne ko waaw ñu ni ka njëkk a ñëw gone la kam ni ko waaw kooka mag la boroom xam-xam yi nag ni kon bu dee mag mi nga xamante ni daanaka kàttanam jeex na xëy na bu boobaa moom mën naa bañ a garaaw ci moom lool bu dee gone moom mën na koo andil fitna li li koy waral muy andil fitna mooy xam nga bu ko defee bu génne génnee masiyu day xay bis ba bu dee masiyu bu dee ci masabu Malik nag laa wax ndax yeneen mazahib yi ñoom dañuy jàpp ni lool du ko yàq waaye bu génnee mànd yu moom bis ba yàqu na maanaam koor ga da koy fay te day kafaara boole ci loolu moo tax nag ñu sib ko ci mazhabu Malik waaye teewul nag ay xadis yu wér saxal na ko nu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko def waaye ca beneen xadis ba dafa wax ni wa huwa amlakakum li irbihi moo leen gën a mën a sàmm boppam ba lu mu bëggul a tàbbi rek du fa tàbbi bu dee sama classe gi nag moom mën nañ ko def ba pare fitna maanaam fitna wu ci loolu moo tax daanaka sori ko daal moom moo gën wallahu taala alam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sama sëriñ ñu ngi lay nuyu baax di la ziar waaw loolu de moom dañ koo sib lool sax moom maanaam dañ koo sib góor ñi def sàppe ba pare jigéen ñi def sàppe ci seen ginnaaw ay góor ñëwaat defaat sàppe encore ci seen ginnaaw waaye bu fekkee lor moo ko waral moom dañoo wax ne du àgg ci sib ndax lor moo ko waral bu boobaa seen julli dina wér bu fekkee lor waralu ko tamit dañoo wax ne julli ga dina wér waaye moom bu boobaa dañ koy sib lool sax waaye dama xamul nag li nga laaj ba xam góor ñi ak jigéen ñi bokk benn sàppeem déet nga xamante ni dañuy laalante bu boobaa moom lenn ci boroom xam-xam yi moom dañoo wax ni bu boobaa góor ñi seen julli du baax waaye bu dee ci bu dee ci yoonu Maalik moom xam nga boroom xam-xam yi dañoo wax ni toj njàpp am na ci ñoo xamante ne dañoo wax ni boo laalee jigéen moo xam am nga ci bànneex moo xam amoo ko ca sa njàpp toj na am ñoo xamante ni dañoo wax ni du ko yàq fu mel ne Abu Hanifa bu dee bu dee Malik nag moom dafa wax ni boo ko laalee am ca bànneex nga xam ni kon bu boobaa ñay julli eh, góor ñeeg jigéen ñi bokk sàppe bu fekkee laalante da cay am rek julli gu yàqu man na caa am te man na am sax ñoom dañ ko bàyyi xel nga xam ne loolu moom moom du na moom amma bu dee ñoo bokk sàppe waaye sàppe yi dañuy duggante loola moom dañ ko sip waaye seen julli dina wér incha allah waaleykum wa rahmatullah waa kay oustaz Murid si bunt bi wala oustaz Babacar ku ma si njëkk kii eh, daa laaj moo moo fi dikkal mbokk mi nga xam ne dafa yéene woon ne suba damay tukki maanaam tukki boo xam ne mën naa wàññi lu mat quatre-vingts kilomètres cent kilomètres yàlla dogal bu mu xëyee euh, am lu ko gàllankoor ba tukki bi mujjul ànd mujjul dem ndax bu mu xëyee am na am na leen lu xew boo xam ne mu mujjul tukki te it ba mu ba ba gàllankoor bi ñëw fekk na euh, waxtu fajar gi passé kooku lu muy def dañ naan ko day jàpp rek doo ko fay bis wala dañ naan ko bis boobu bu ko neexee lekk kanaan loolu laa ko ma si mën a dimbali waaw jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah sama sëriñ ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar waa xam nga ki nga xamante ni dafa war a xëy tukki te buy xëy di tukki du woor nga xam ni moom yàq na wi yéeneem maanaam tàbbalul yéene ga laataa fajar ga di xar maanaam yéene moom balaa baax ci koor faw mu tàbbal yéene ja laataa fajar rawatina kooru farata bu dee ci yoonu Malik moom farata ak naafila ci yem moom waaye comme am na ñoo xam ni moom dañoo jàpp ni budul farata mën nga koo tàbbal ginnaaw fajar waaye comme ci yoonu Malik la ñuy wax te xaddis ba dafa wax ni koor moom yéene ja faw nga tàbbal ko laata fajar ga di xar waaye bu dee koor gépp koor goo xamante ni toftale ga dafa war lu mel ni kooru ramadan wala ko rayoon nit wala koo xamante ni dafa zihaaroon soxnaam nga xam ni koor yooyee moom toftale ga force la genn yéene baax na ca ba keroog koor ga di jeex lu dul dafa am ngànt ca diggante ba ngànt li nag li ci la bokk bu fekkee day tukki ba pare ni day day wàññi maanaam day maa ngi naan day wàññi sax day dog koor ga ba mu yéenee ni day dog koor ga rek bis boobee moom bu bu fasaa bu yéene waatul laataa fajar gay bu xëyul dem sax koor googee moom bis ba day yàqu léegi nag ñu ñu ndax bu xëyee dem xam nga ko xam nga comme xas na yàq yéene ja moom koor ga mënta wér ndax mënatu koo dabuwaat léegi bu fekkee dem na ca tukki ba bu boobaa moom alhamdulilah mën naa continuer di lekk ka naan waaye bu demul ca tukki ba du sañ a lekk ka naan faw day jàpp bis boobee rek du lekk du naan euh, ba te teewul nag da koy fay bu lekkee naan rek dañoo wax ne day fay bis ba ba pare kafaara boole ci salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Mori ñoo leen baax a baax a baax macha waaye man masala bi ma ci jàppoon ci wàllum tukki damaa foog ni si masabu Malik bu fekkee ci wàllum koor la ngay tukki baloon na laa may ngay wàññi day fekk nga départ avant fajar di jot waaye bu la fa fajar xasee fekk rek wala nga xam ne fajar na la fa fekk kon dañ lay wax nga woor wala man sama dégg-déggin foofu moo moo xaw a yàqu gindi ma si waay ñoo leen nuyu jële siyaar bu baax waaleykum salaam wa sama sëriñ ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar waa xam nga dañuy wax ca Cheikh Khalil boo fa demee bam naan euh, summa sharaa fiihi qabla al fajr xam naa bu ñu yàqul jumla ji euh, tukki bi dafa bokk ci charte yi nga xamante ni kii tukki sañ naa bañ a woor mooy tukki bi mat tukki bu wàññi ba pare ñu ni mu maanaam mu dugg ci tukki ba laata fajar xam nga dugg ci tukki ba laataa fajar waaye loolu du tekki ne xam nga ku ci nekk ak waxtu wi nga wi nga wi nga war a tukki kii nga xamante ni dafa yéenee tukki tukki bu mat wàññi ta moom heuram du fajar la war a dem ndax fajar xëy na mën naa am am na lu muy xëy lijjant ci dëkk beeg yooy war a dem kooku dan naan ko comme yaa ngi xëy war a tukki yéene nga wóoroo de maanaam yéene nga bañ a woor waaye doo sañ a lekk ka naan lu dul da dugg ca tukki ba boo demee ba ca barab ya nga xamante ni dañoo wax ni ca nga ca nga sañ a nga door a tàmbali bu la neexee ngay lekk ka naan waaye li ñuy bañ ci kooku ki nga xamante ni dafa toog ba fajar fekk ko fa waaye moom yéenewul woon a woor ndax tukki ga moo tax kooka nag du ni rek comme damay tukki rek xëy ndekki këram ba suur déedéet bu boobaa moom faw yet wi day dal ci kawam loola la bañ foofee waaye bu fekkee heure am mooy dafa am lu muy lijjanti ci dëkk bi ba door a dem kooku moom bu xëyee du lekk du naan waaye nag comme comme dafa war a tukki nag du sañ a lekk du sañ a naan ca kër ga faaw mu bàyyi rek ba dem loolu sax dafa am xadis bu ñuy tegtaloo boo xam ni xare ba nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi bañ ko doon def dañoo dem ba ni dax wax nañ ne dañoo dem ba àgg barab sàngam door a lekk foofu lañ tegtaloo ni kon kii tukki bu du du sañ a xëy rek ni damay lekk ka naan ci sama kër door a dem comme damay tukki faw li gën mooy mu génn balaa fajar balaa fajar gay xar mu génn xam nga bu boobaa moom mën naa continuer lekk ka naan waaye bu fekkee génnul waxtu woowee tamit ne kër ga du sañ lekk ka naan lu dul dafa génn di doo di dem waaye nag bu fekkee dafa fari yebbi nag moom bu boobaa moom loola tukki amatu fa kon comme tukki amatu fa rek atteb tukki amatul ci moom kon dootul sañ lekk dootul sañ naan waaye nag dafay yàq ab bisam loolu moo tax sax bu dee ci yoonu Maalik moom li gën mooy nga woor bu fekkee wóor na ne la koor gi du la sonal ndax wa an tasuumu xayrun lakum jooju alquran wax ci la sukkandiku ba ni nga woor de moo gën incha allah wallahu taala alam teewul foofu nag boroom xam-xam yi yaatal nañ ci lool ki nga xamante ni day tukki woor dem ba ca digg ba dog ndax kafaara dina ko war wala du ko war am nañu ni da koy war waaye li gën a wér ci mësab bi mooy même bu xëyoon di woor xëyoon yéene woor di tukki dem ba tukki ba metti lool mu dog kooku du du kafaara ndax comme yàlla moo ko mayoon mu woor rek mu mu bañ a woor waaye teewul nag ci mazhab bi am na ñoo xam ne dañoo jàpp kooku teewul day kafaara waaye li gën a wér mooy kooku du kafaara incha allah. ñu ngi lay nuyu baax di la man dafa ma ab laaj ma lu may laaj ci ay ay dalil bi maanaam ñi nga xam ne dañuy pikiru yàqul koor ñoom fan lañ teg ni fan lañ àttewoo ba ni pikiru yàqul koor ak ñi nga xamante ne dañ naan pikiru dafa yàq koor fa lañu sukkandiku ba ni pikiru day yàq koor loolu daal lëntin sama xel may sàkku nag si ustaas ñu leeral ñu ko ànd ak allahu rabbi jërë ngeen wa kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la waa xam nga pikir moom buñ nee pikir rek doomil pikir yépp ñoo bokk benn atte wala ñoo bokk lépp lu ñuy lijjanti xëy na am na pikir yoo xamante ni mën naa taxaw taxawaayu lekk di taxaw taxawaayu lekk xëy na mën naa dugg ci mbaq ak yu mel noonu waaye daal pikir yi nga xamante ni dañ koy def ci loxoog yu mel noonu nga xamante ni du àgg ci mbaq gi moom du yàq koor euh, boo demee ca borom taaj wal ikliil sax ma ngi koy wax ci ka nga xamante ni dafa am euh, tawat joo xamante ni ab gaañu gaañu la boo xamante ni da koo am xëy na ci ginnaaw geeg yu mel noonu wala ci tolloog Eh, faar yi di ko diw ñu ni diw googee bu fekkee dina àgg ca biir mbaq ga ba nga xamante ni diw gi day àgg ba ci biir mbàq ga dina ko yàq eh, am ci yenn ci borom xam-xam yi ñu ni du ko yàq ndax bu bu àggoon ca biir mbàq ga moom day faatu xëy na ñoom loola lañ jàpp waaye daal bu fekkee pikir la buy taxaw taxawaayu lekk nga xam ni boo ko pikiroo moom day mel ni dangaa lekk moom moom day yàq koor moom ndax doonul lekk moom ci gémmiñ rek la mën a jaar ndax boo xoolee ñi naan kafaara euh, ki koy def xam nga wànneen xam nga maanaam euh, tuufaay sax mën naa yàq koor bu fekkee tuufaay boo xamante ni bu ko nit ki tuufee ci bët bi day dugg ba ca biir mbàq ga ndax lu mel ni bët ak bakken dafa am ay pax yoo xamante ni dañoo àgg ba ca mbàq ga loolu moo tax sax ñuy wax ni li yàqu koor mooy loo xamante ni day dugg ca mbàq ga moo xam da nga koo tuufaayu mu jaar ca bët ba dugg ca mbàq ga wala nga duga fas fajukaay boo xamante ni ci bakkan yi nga ko jaarale mu dugg ca mu dugg ca biir yooye da koy yàq waaye bu dee ca gémmiñ ca paxi bakkan ya la ko jaarale wala ca bët ya mu jaar fa même bu ko tayee kooka moom koor ga mën naa yàq waaye kafaara du ko war ndax ñu bari dañoo jàpp ni waral kafaara moom faaw ci gémmiñ gi rek lay jaar dugg ci biir euh, incha allah kon xam naa loolu la rek ndax ñi wax ni da koy yàq mooy ñi jàpp ni dafa mën a taxaw taxawaayu lekk ak pikir yee taxaw lekk ñi ni du ko yàq mooy euh, ña nga xamante ni dañuy du taxaw taxawaayu lekk ak pikir du def ndax ku mel ni ibnu abbas moom nee na lay yàq koor moom mooy lay dugg rek lay dugg ca mbàq ga incha allah